ñu ngi nuyu waa Bambilor yépp di jiital ci nuyoo bi ñi taxaw nii di ay nit ñoo xamante mën nga jàpp ne war nañoo mën a taxawal Bambilor ci pas-pas ak ci yéene ak ci defar tey nag li ñu indi fii tey mooy dañ ne loo xamul mu gént mënoo koo firi géntu jàmbur mënoo ko firi jàppoon ne kon bés la boo xamante ne bii war nañ daje ak ñi nga xam ne ñoo ñëw fii am seen titre bëgg ñëw liggéey ko ñu déglu leen xam nu ñu taxawee ak lan lañ bëgg a def ànd nañ nag xool terrain yëpp xool superficie bi waaye li ñu jàpp te ko mooy dig bu rafet moo fi am ak yaakaar ju wér ci ne dinañ déggoo ñi fi taxaw ñëpp nag dara taxu leen jóg lu dul défendre intérêt yi seen njaboot intérêt yi dëkk bi waaye avenir gox bi ba nga xamante ne bii dina jëm ci àgg ci mu nekk une ville neuve Bambilor ci bopp nekk une ville neuve waaye du ànd ak métit loolu mooy li ñu gën a ñor yi fi xew yëpp ay njuumte am na ci naam waaye njuumte yu ñu mën a réparer la yu ñu mën a defaraat ba mu rafet ñu fas yéene woon nag waxtaan sottante xalaat ba tey fii ñu toll am na ci lu ñu xamul lu bëri lu ñu xam ba tax na ubbi na bunt pour ñu am rafet njort ne dinañ déggoo ba nga xamante ne bii liggéey bi dina jaar yoon ci anam yi mu gënee ñuy wax ne nag waa Bambilor yëpp na seen xel dal parce que bu dee 60 hectares waxtaane nañ ko fi pour fexe mu sotti bu dee ñi nga xam ne ñoo fi am ay tool waxtaane nañ seen kaa pour que li nga xam ne mooy ndàmpaay yi fi daan xew xanaa yu ko raw am ci waaye yu ko yées fas yéene wu mu am fi ñi nga xam ñoo fi am ay ay lotissement itam bokk na lu ñuy ëmbaale waxtaan naa la ko en tout cas li ñu fi jële mooy déclaration bi kilifa gi wax yi ñëwoon tey jii nii muy euh, directeur service wax na ne incha allah waxuma la sax titre bi nga xam ne mooy bosam waaye dina ànd ak ñun pour que Bambilor gis njëriñam Bambilor infrastructure yi muy xëccu ak yi mu bëgg yëpp mu nekk mu am ko ñun nag noonu la ñuy àndeek nit dañ lay gëm ndax suñu bopp la ñuy xoole doomu aadama bu nekk loo ñu wax dañ koy jàpp dañ koy gëm Ndella nag mu ngi wax loo xamante ni lii fas yéene na ko def ñun loolu rek lañuy ñuy gëm fës yéene see ànd ak moom jàppale ko ba mu réussir ko bu ko defee Bambilor na ci gis boppam képp ku fi amoon njàqare sa xel dal ñu xam ne ñii ñëw ci terrain bi aussi ñëwuñu pour lenn dul xam la fa ne ndax loo xamul munoo ko natt munoo koo quantifier ba mën koo weccee moo tax ñuy dem sur le terrain ñu buggoon nag léegi ginnaaw ñu ngi ci phase waxtaan képp koo xamante ni yaa ngi fi nekk am fi terrain te commencé woon di liggéey nga dégloo ndi ba ñu xam situation global bi ak nan lañ koy saafaraa ba nga xam ne bii kenn du mer